mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñoom ci rajo Rewmi FM ci émission bii di gox bi di daw ci rajo Rewmi FM 97.5 tey ñu am uh, gan uh, di uh, soxna Ndeye ñaa moom mi nga xam ne moom mooy présidente national réseau d'appui jigéen ñi nomba tànk yi nag dafa bari soxna Ndeye ñaa ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. waa kay Mbemba maa ngi leen di fay bu baax di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu auditeur ak auditrice su mi FM mhm. euh, di leen jaajëfal bu baax ci invitation bi mhm. waaw tey euh, waxtaan bi fu ko nar a dooree rek mooy Cleaning Day naam xam nañ ni nekkul samdi bu njëkk ci euh, weer wi waaye dimanche la tombeel ndax yéen ni ni mel def ngeen ko seen gox moo xam génn setal setal seen gox bi ndax yéen def ngeen ko tey waaw tey moom génnuñu mais dañu programmer semaine prochaine. Mm-hmm. ñu def ko parce que comme dafay tombé ak euh, le 8 mars. Mm-hmm. di bisu jigéen ñi. Mm-hmm. mu xëy la matin def ko. ngoon gi ñu organiser ay panel yoo xamante ne bii dinañ ci waxtaan loo xamante ne bi ñun daf ñuy jëriñ. ñun jigéen ñi. Euh, rawatina ci euh, maanaam tolluwaay bi nga xamante ne bii tey ji jigéen ñi am nañ ko. ak it tamit mitital maanaam rey bi nga xam ni dafa tegaloo. métti mhm. lool ñu koy ñu koy teg suñu suñu moroomu jigéen yi. Mhm. ñu ñu génn wax ci mhm. joxe ci suñu kàddu joxe ci suñu xalaat mhm. ba nga xamante ni bii tey jii dinañ mën a trouver solution ci ci ci violence yi nga xam ni mhm. dafa commencé di nekk ay violence yu récurrente vraiment di am loo xamante ni bii day métti bu baax ci ci kaw jigéen ñi loolu dinañ ci ñëw ci njeextalu émission bi ndax 8 mars mu nekk ab pàcc bu am solo woo xam ne dañ ko jagleel ñi nga xam ni nag ñoo di soxna yi waaye laata loolu da jiite ab réseau bu am euh, solo yi nga xam ba jiite ci réseau ci niveau national. Mhm. tey mën nga ñu wax ni euh, réseau bi nan la def ba juddu yan jéego ngeen def ba mu taxaw ngeen euh, dool boole seen doole yéen ñi nga xam ne yéen yi jigéen ñi. waaw xam nga loolu bu ñëwee moom question boobu bu may sawar lay doon. Mhm. parce que dañ doon liggéey ak ONG Plan. mu mhm. ñuy jàppale ci maanaam ni ñuy jàppale jigéen. pour que jigéen ñi mën a mën a mën a suqaliku mhm. ndax euh, tey ji su fekkente ni bi danga fekk jigéen rek nga may ko dara mhm. mu yor ko di ci di ci liggéey mhm. euh, mën na jeex mu ñëwaat léegi nag nga won ko yoon bi nga xamante ni bii moom la muy liggéey dina am lu mu cay denc. Mhm. Euh, di ci fagaru. nga xam ne bu soxlaa dina dem jël. te du dem jaar ci banque yi ñu koy ñu koy teg ay maanaam frais yoo xamante ni bii du ko àttan. Mhm. boo lebee fukki junni daanaka li ngay am sax du du ko mat. Mhm. ba pare intérêt yi bari te intérêt yi doo xam après fan la jëmaat lu dul delluwaat ci banque bi. bi ñu tàggatee nag ci loolu ñu commencé di dajale ay femmes nag di mhm. leen ci di leen ko monteel mhm. koy wax ay caisse d'épargne et de crédit di mhm. leen ko monteel di leen ko monteel ba pare nag ñu dajaloo ñun wax ni fi nekk nii nag dañu war a boole suñu ay doole comme ça ñu mën a ñu mën a ñu mën a gën a jëm ca kanam ndax mbooloo mooy doole ndax yomboon na non xam nga loo gis mu nekk euh, une première du yomb. Mhm. parce que nit ñi dañuy faral di wax ni amuñu amuñu. Mhm. moo tax duñu faral di denc. mais dërëm sax boo ko dee teg ci barab bu yàggee boo ñëwaatee dina mën na doon loo xam ne lu consistant lay doon lu la mën a fajal soxla. Mhm. ñu ne leen waxuñu leen ni tey da ngeen di am lu bari ngeen koy denc. mais da ngeen di am part tuuti tuuti li ngeen di am bu dee cent franc la sax jël leen juróom yi ngeen denc ko. Mhm. soo leen ko dencee ba at mi dellu si. Mhm. wala ba mu mat juróom-ñeenti weer. Mhm. dina mat dara. léegi su dajale boobu ngeen koy dajale day nekk somme boo xamante ni bi tey jii ki nga xam ne dafa war a dem syndicat. yow war a am juróomi junni yoo xamante ni bi war na ko yóbbu syndicat wala ñaari junni du soxla muy dem si banque ba. ñu ubbil ko compte fayloo ko. ñu laaj ko frais de dossier frais de tenue de compte yooyu yëpp ñu laaj ko ko. finalement vingt cinq mille yi bu ci demee syndicat à fortiori euh, quinze mille lay dese wala ay douze mille cinq cent mhm. su ko defee nag ñu ni leen ki nga xamante ni bi dafa yor taabalam bu ndaw moo xam omo lay jaay moo xam mm, syndicat lay dem mhm. su bëggee quinze mille francs mu yomb ko lool ndax mhm. day ñëw toog ci basan gi suñu épargne ba pare ñu dajale moom mu mën ci leb dem syndicat ñëw teg taabalam su ko defee intérêt bi ciy judduwaat daf koy delloo ci biir kees gi intérêt boobu bu euh, date bi jotee. Mhm. dañ koy waat ñëpp mu delluwaat ci seen biir. Mhm. di fàttali mbokk yi rek ñoom mën nañu dugg ci émission bi daal di joxe seen xalaat ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàll wi ni mel 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 waaw bi ngeen tegee jéego yooyu léegi ngeen commencé law ndaxam. fan la dooree mbir mi ndaxam jidda caaroy kaw la ni ngeen ko doore waa jidda caaroy kaw lañ ko dooree nag ci ci euh, quartier bu ñuy wax lan saar foofu lañ ko dooree. Mhm. foofu lañ doore mbir mi. Mhm. commencé nag di ko lawal ci yeneen quartier wu jidda caaroy kaw yi. Mhm. ba nit ñi gis ko daal waaw di ko di ko di ko laaj. ñu ñu ñu commencé nag di am kii yu di génn. di leen di leen di leen defal waaw. waaw léegi ba ngeen commencé di génn ban région ngeen njëkk a dem ngir euh, monter li nga xam ni moom moo jëm ci réseau bi. waaw xam nga dem nañ géewul géewul lañ njëkkee fa lañ ko installé. Mhm. après am nañ Touba nañu nañu tamit Louga bëri na bëri na ay zone yoo xam ne am nañ ko Touba tey mhm. Mbàkke waaw ba ci ba gaaya mhm. gaaya am nañ fa géejawaay gi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo ñoo ñoo frontière mm-hmm. tamit am nañ fa mm-hmm. am nañ daal pas mal yoo xamante ni bii comme lawagul c'est juste un an mm-hmm. lay lay lay soog a def am nañu pas mal yoo xamante ni bii jot nañ fa jot nañ fa dem pour installer ko fa tey membres yi mën nañ ne ñu ngi ci Sénégal wërngal këpp tey ñaata lim bi mun nañ xam ñaata la lim bi nag du du du yomb pour ñu du yomb pour ñu pour ñu wax ko nii. Mhm. mais jàpp nañ ne daal ñu ngi avoisiné ay trois mille trois mille cinq cent membres. trois mille trois mille cinq cent membres waaw. léegi nax ngeen di def chaque fin du mois ku nekk day cotiser dugal ci sa koppar ci euh, réseau bi wala yéen euh, ci euh, plan international da leen di financé ci ngeen di def ngeen seen i activité wala da ngeen di xaar ñu financé leen wala yéenay dem utali seen bopp li nga xam ne moo di jël koppar yi ngir financé seen bopp. c'est-à-dire ñun bi ñu plan di di di tàggat daf ñu tàggat ci naka la ñuy épargner mm-hmm. naka la ñuy lebe mm-hmm. waaye tamit naka la ñuy delloowee mm-hmm. bi ñu tàggatee si loolu ba pare nag ñun dañu dañu am ay kees kees yi lañ tuddee caisse d'épargne et de crédit ci kees yooyu bi ñu ko bi ko installé yow ci ngay ci ngay épargne chaque semaine la ñuy daje suñu dajee chaque semaine ñu épargner ñuy bëgg leb leb li ci des ñu ñu ñu ko. Mm-hmm. su matee par cycle la. Mm-hmm. soit cycle lu neuf mois ngay def wala un an. Mm-hmm. Euh, ça dépend ci li ngeen waxtaan ba ba tënk ko. léegi nag ci cycle boobu bu jeexee. ñu ñu def partage bi. ku ci nekk la nga doon épargne nga jotaat ko. plus say intérêt ak yeneen yi nga xamante ni bii toftalu na ci ci xaalis bi. léegi nag loolu ngay jot yow yaay xool après noo koy defee. parce que ñun bu ñuy def activité dañuy am culture du cotisé cotiser kuñ ciy fekk nag fekkuñu ñu ci. Mhm. ñu ciy fekk fekk ci mais ñun daal ci suñu bopp la ñuy njëkkee. Mhm. def suñu cotisation def li ñu war a def. Mhm. tey teg nañ ay bànqaas yu mel nii ay DER waaye laata loolu sax ndax yéen koppar gi yéen a ciy tàggat itam seen moroomu jigéen ñi. waaw ñu ngi leen ciy tàggat parce que bu buñ la tàggatee ci transformation mm, produits locaux yi nga xam ne am na fi. Euh, aussi dinañ dinañ fexe tamit. loolu nan lay demee ci transformation produits locaux yi. maanaam xam nga dafa am ay ay ay ay fàcc ci programme njiitu réew mi sax di nga dégg mu naan ay agropole. Mhm. ñuy wax ay filière de métier. ñuy mhm. wax ay chaîne de valeur. Mhm. léegi nag chaîne de valeur bu nekk dafa am loo xamante ni bii moom lañ ci moom lañ ciy def. parce bu dee bu dee produit mil bi. dañuy ca production ba la ñuy commencé ba ci produit fini bi maanaam ci transformation bi commercialisation bi inclus lépp si biir mhm. parce que tamit bu dee da ngay def euh, transformation da nga war a da nga war a xam lépp lu nga xamante ni bii moo mhm. nekk autour de la transformation mhm. muy maanaam wut label beeg euh, nom beeg logo yeeg yooyu mu permettre la nga nga compétitif parce que fekkente ni bi yow comme ni ñuy produire nii de manière artisanale mm-hmm. la ñuy produire su fekkente ni bi dañu continuer ci base boobu rek mën nañ ni duñu duñu compétitif par rapport ak ni ni monde bi di demee nii actuellement mm-hmm. parce que fi ne nii yamatuñu rek ci teg ci sa boutique rek di jaay mais même internet dañuy jaay ñuy wax e-commerce di wax globalisation mm-hmm. donc yooyu yëpp dafa dafa war a am ay yoo xamante ni bi ñi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu war nañ leen cee tàggat ba ñu ba ñu xam ko donc kon étape par étape la ñuy def. Mm-hmm. dañu dañu commencé ci métier mi ba pare. Mm-hmm. bëgg nga mën sa métier. Mm-hmm. ñu soog ñëw nag ak yow ci financement. ñëw ci accompagnement bi. après yow soo defaree sa produit. produit de qualité bi ngay defar tamit naka nga koy defaree. ba pare naka nga koy wanee ba ñu mën ko gis jënd ko. waaw ci ci loolu dañuy desandi ci wàllum euh, koppar gi ndax yéen bind ngeen ci euh, comme DER benn bànqaas boo xam ne da ngeen di utu ay koppar. ñu ngir ñu jàppale leen ngeen mbébét yi nga xam ne am ngeen ko comme ça mu mun leen jox koppar boo xam ne da ngeen dem uti eh, tàggatawaale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna wala ngeen dem utal demal seen bopp ndax DER financé na leen ci loolu. waaw kay jëf Mbemba question bu am solo nga laaj parce que ñun bi bi DER bi ubbee. Mhm. li ma dugal ci ay dossier malheureusement waroon naa indaale récépissé yi mhm. comme ça mu nekk euh, preuve mhm. à l'appui mhm. mais benn groupe rek lañ ci financé ci sa groupe yow ci ci ci li ma déposé woon lépp benn groupe lañ ci financé mu ngi doon avasé na ay cinquante voire soixante cinquante dossiers benn lañ benn benn lañ si génne léegi bi veyu élection yi lañ lañ leen woo ñoom bi leen yónnee ci message ci seen portable présidente bi daf ma woo wax ma ne ma dañu dañu yónnee message. Mhm. ma ne ko fii ngeen wax dem leen fa ba xam lan lañ leen di wax. Mhm. mu dem ñëw ne ma ku nekk trois cent mille lañ leen financé ñoom nag ñu ngi ñu ngi doon ko def ci seen biir. Mhm. bay dem di remboursé ji. mais benn groupe. la ñu ci financé. ma gëm ni bu dee état dafa teg ay ay structure wala mu teg ay agence yoo xamante ni bii pour jàppale femmes yi ci ci ci li ñuy def la. dañu war a dem à xool ñi nga xam ni vraiment ñu ngi ñu ngi en activité soxla nañ ko te te mu war leen a mën a jàppale ñu jox leen ko. Mhm. su ko defee ñoom ñu mën a développer seen activité mën a créer waale sax ay emploi mhm. parce que tey jii ku ku ku am petite et moyenne entreprise wala nga am unité de production. Mhm. ne serait-ce que cela di nga mën a jël. ay nit yoo xamante ne bii journalièrement di nga leen mën a fay. wala bu ñu liggéeyee ba weer bi dee bu ñu defee compte yi ku nekk la nga ca war a am nga jël ko ci. mais c'est dommage que. Mhm. yenn programme yi jàpp ne objectif bu DER daal euh, yow. Euh, ah man fi ma nekk de muy ci banlieue bi. Mhm. vraiment ni mu fa waroon a demee. Mhm. demeewu demeewu ko fa parce que gisuma ko te am na ay femmes battantes ay femmes actives yoo xam ne bii ñoo nga fa. vraiment di di di liggéey. ngir ngir ngir suqaliku di liggéey tamit ngir jàppale seen gox. léegi nag su fekkente ni bii ñoo ñëpp soo leen laajee par benn benn ñoo ci. ñoo ciy am mhm. financement mhm. Euh, problème bi dafay dafay des ba tey mhm. dafay des yow nga ne diirub at yaa ngi jiite réseau bi ndax kon mun nañ di li nga xam ne moom moo jëm ci ay foire comme euh, foire yi nga xam ni mën ngeen dem exposé ci nga xam ni yaa ngi koy wax léegi produits locaux yoo xam ne fii lañ koy defaree ci biir Sénégal ndax mun nañ xaar ngeen di participer ci ay foire yoo xam ne yéen li ngeen di defaral seen bopp moom ngeen di exposé waaw xam nga bu yàggul dara rek ñu ngi doon liggéey ak. Euh, ASAPEX wala non non chambre de métier. Mm-hmm. ci artisan yi. Mm-hmm. Euh, ci seen dossier boobu ñu am projet bi ñu am ak euh, waa USAID. Mm-hmm. doon recenser menuisier yeeg mécanicien yeeg transformatrice yeeg yooyu. pour benn programme boo xam ne dañu leen di renforcer waat. équiper waat leen. am na ay dossiers yu bari déposé nañ ko. Euh, te je pense que war nañu organiser tam benn foire au niveau de Diamniadio. Mhm. ñu juróomi la cinq. waaw ñu ñu ñu ci doon solicité mhm. pour que ñu mën a dem mën a am foofu sànd mën a exposer mhm. suñu suñu ay produits. Euh, ñu ngi ci ñu ngi ciy liggéey. ngi ciy liggéey. te yaakaar jàpp naa ne bu sottee. dinañ dinañ mën a dem exposer suñu ay produits foofu. kon yaakaar yéen ñu ngi leen di kon war ngeen bokk ci ñi nga xam ni. war nañ exposé fa li nga xam ne moo di ci siyaat bi nga xam ne moom mooy am ca diwaanu Diamniadio tey noo gisee tey li eh, ni mel initiative bi nga xam ne euh, siyaat am na ko di jël li nga xam ne moo di jël artisan yi ñuy exposé li nga xam ne ñoom moom la ñuy jaay ñu boole leen ci benn salon boo xam ne tey naka nga gisee li ni mel. waaw loolu lu ñuy rafetlu la parce que ñoom en général dañ doon wax éducation ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen corps de métier yi. Mm-hmm. suñu demee ba tey jii xam ne ñu yor seen liggéey bopp nekk ci économie informelle dañu mhm. am wàll am place yi ci ci réew mi mhm. ñu ñu impliqué leen di leen di leen boole ci ay programme ak mhm. ay projet loolu moom dañ koy dañ koy saluer euh, mais ñu jàpp rek ni dañu war a gën a wàcc gën a wàcc ci les vrais acteurs suñu gënee wàcc ci les vrais acteurs Euh, yaakaar naa résultat yu ñu escompté. Mhm. dinañ ko am parce que maa ngi koy wax ci sama présentation ni mhm. vice présidente laa ci SEMIC. Mhm. SEMIC benn coopérative la coopérative des entreprises du mil. de boo xamante ni bii ñoom tam dañu amoon accompagnement ak euh, benn ONG Kuluza. PSM boo xamante ne bi États-Unis la nekk. Mhm. moom foofu dañ doon insité sax que ñun ñuy organiser suñu bopp ay mhm. foire di ci exposer produit yi ñuy def. Mhm. ak lan lañu mën a def si si si si produit mil bi. variété yi ci mën a def yëpp. bu ñuy def foire bi dañ ko ciy defaale. def dégustation. togg ay ngurbaan ay yoo xamante ni plat yoo xamante ni bi yu ñu bëri xamatuñ ko. parce que dañ jàpp ni dugub cereeg laax rek la mën. loolu kese nga ci mën a def mënoo ci def leneen. ñoom ñu ñëw ni war nañ ci mën a def leneen ak leneen mhm. loo xamante ni bi bokkut ak ñun liñ jàppoon mhm. kon donc ñooñ tam doon nañu incité ñuy def ay foire locale yoo xamante ni suñu biir gox lañ ko doon def mhm. di ci participer ak euh, femmes transformatrices yi mun nañ xaar lim bi nga xam ni moom ngeen yóbbu foofu ca jëm ñaajo benn stand la wala non dañuy xaar parce que waa chambre de métier ci ñoom lañu la ñu dépendre actuellement ni ñoom la ñuy waxal xamaguñu ñoom exactement yan disposition la ñu jël. Mhm. mais euh, en tout état ñun bu ñu ñëwee ci ñun rek ñun moom vraiment dinañ. Mhm. dinañ jël les mesures mhm. pour que ñu mën a ñu mën a dem participer ci kii. ñu ñëw ci mbiru gox ak goxaan yi parce que bu ñu nee gox bi mooy jafe-jafe yi nga xam ni moom la askan wi dëgg di jànkonteel ci gox yi tey su ma nee Djiddah Thiaroye Kaw lan moo fay metti tey lu fa gën a jàmp lan la. jidda moom la fa doon la fa doon metti bëri na mais jàpp naa ne mi ngi commencé di am ay saafara parce que inondation moo leen sonaloon. Hmm. te te pratiquement ak euh, projet bi projet état bi. Hmm. vraiment moom def na ci ay jéego. Hmm. def na ci ay jéego yu am solo. ba fi mu nekk nii ñu ngi ñu ngi canaliser ñu ngi def ay tali carreaux di pavé donc. Ah, pavé yi yéex na de. waaw yéex na mais mais ñu ngi ci ñu ngi ci parce que même bassin yi ci ci kii bassin yi noonu commencé nañ di ko di ko di ko defar mm-hmm. te te buñ ko defaree ba ba installé euh, canaux yi mm-hmm. vraiment li ñu doon li ñu doon métti foofu maanaam muy ndox mi ñu doon sonal mm-hmm. dina wàññeeku parce que ñaari at yi yëpp pratiquement nit ñi gisuñu ndox moo xamante ni bii tere na leen a dëkk wala mu tere leen togg wala mu tere leen kii mhm. te heure bu nawet jotaan jënd caare kaw la majeure partie dañuy toxu mhm. soit ñu nekk ci école yi wala ñu dem feneen ba ndox mi wàññeeku ñu ñëw defaraat seeni kër sëkk mhm. pratiquement kër yu si bëri sax da ngay gis dañ naan la man fii la sama kër tolloon léegi dem koo sëkk ba mu egsi fii mais ñaari at yi wala ñetti at yi sax laay wax euh, daal gisatuñ ko du inondation rek moo leen rek mais mhm. mais boobu tamit mhm. danga may may ma ma ma ma ma nuyuwaale tuuti sama collègue yi nga xam ne ñoom laa nekk lool ci association bu ñuy wax collectif des associations pour la développement de Djidah Thiaroye ko ñu koy mhm. wax CADD nga xam ne moom tamit dafa porté woon benn projet boo xam ni ñu ngi koy wax Urba DTK. Mhm. Euh, mu mu doon wax ci wàllum urbanisme. Mhm. urbanisme Djiddah Thiaroye Kaw. Mhm. biñ biñ ko porté. fi mu nekk nii Djiddah Thiaroye Kaw mooy seul commune. bu am PUD. muy mhm. plan urbanisme de détail mhm. bureau urbanisme bi ñu am boo duggee ci mairie bi ma nga fa mhm. mooy mooy wax lépp loo nga xamante ni bii foncier la lépp lu nga xamante ni bii tey jii espace la boo xamante ni bii commune bi moo moom boo ko soxlaa foofu ngay foofu ngay dugg en un seul clic ñu ñu ñu génneel la ñu génneel la cartographie ji de Thiaroye Kaw euh, projet boobu daal permetre na Djiddah Thiaroye Kaw mu nekk cas d'école ci yeneen commune yi nga xamante ni bii dañ doon dund inondation comme comme ñun niñ ko doon niñ ko doon dundee. waaye inondation maanaam mm, bu nekkoon benn pàcc la daanaka mu ngay gën a am saafara tey. Mhm. ok léegi ñu jógee foofu mais bu nee Pikine euh, xel yëpp dañu dem ci wàllum xëy ndaw ñi la nga xam ni moo di liggéey jigéen ñi ñu si bari seen euh, loxo jotul seen ginnaaw dafay metti yow ngay actrice développement tey euh, yow yan jéego nga def tey ci commune bi ba nga xam ne moom moo jëm ci wàllu mbirum développement yow yaa ngi ciy teg sa tànk bu baax. waaw benn bokk na ci caisse d'épargne yooyu. Mhm. parce que bu bu bu bu tabaski jotaan. Mhm. wala ouverture de classes jot. wala korité jot xam nga ouverture des classes moom bu jotee di nga jëndal sa doom yére dinga nga ko inscrire di nga ko wutal fourniture. Mhm. tey jii kees yooyu bokk na ci lu muy saafara. ndax au delà ñuy def épargne boobu ak crédit bi dañu am tamit caisse de solidarité boo xamante ne bi tey ji ku feebar dinañ la ci jàppale mhm. ci loo dul remboursé mhm. mais aussi bu ouverture de classes jote te yow mën nga jël prêt boo xamante ne bi di nga inscrire sa doom yëpp jëndal leen li war ba seen njàng du tardé mhm. loolu rek déjà gëm naa ni jéego la jéego la boo xamante ni bi euh, tey ji euh, jidda caare kaw gi yëpp ñoom ñëpp maase nañu ni kees yi yeex na faa ñëw. yeex na faa ñëw beneen bi ma nekkoon tamit présidente comité de gestion. bu école Lansar A. bi nekk sama quartier. ñu doon dem di di di di wuti ay ay ndimbal pour que école bi mën a mën a mën a avancé ñu am ay bonne volonté yoo xamante ni bii tey jii tabaxal nañ ñu fa benn salle multimédia. naam ñu ngi ci construction yi jeexagul. Mhm. mais su noppee dinañ ko équiper. Mhm. pour que xale yi mën a mën a jàngaale informatique. Mhm. à bas âge nga xam ne bu ñu màggaalee ak moom dinañ mën a compétir ak beneen zone bu mu mën doon. parce que suñu waxaan Pikine rek. dañuy wax banditisme dañuy wax. Euh, vulnérabilité dañuy dañ leen di taxé de tous les noms léegi nag loolu il faut que mhm. ñun ñi nga xam ne ñoo fa dëkk mhm. ñu jël conscience que ni mhm. lim xew ci yeneen dëkk yi war na mën a xew ñun ci suñu réew du yomb nag mais bu ñu bu ñu tàyyiwul ci sensibilisation bi tàyyiwuñu ci ci ci ci waxtaan bi mhm. tàyyiwuñu tam ci jéego yi di teg ay programme ak ay projet yoo xamante ni bi dina permettre nit ñi mën a gis seen bopp mën a dem wuti am mhm. li ñuy am mën a toppatoo seen kër mhm. suñ ci tàyyiwul gëm naa ni loolu dina dina dina saafaraw ci xëyib ndaw yi nag metti na waaw metti na metti na trop mais mais xam nga tamit soo jàngee ba yor si yenn diplôme yi mhm. man je pense que waroon ni kut ko kut rek man dama war a dem rek état jël ma wala dara mhm. Euh, esprit entrepreneurial dañ ko war a dañ ko mhm. war a. yaa ngi ciy incité eh, askan wi. waaw dañ ci war a tàggat ndaw yi parce que formation yooyu ñuy def. ci mhm. wàllum transformation yooyu. Mhm. tey jii nga nga taxawal sa unité après mën na au fil du temps mu nekk petite et moyenne entreprise au fil du temps mu nekk une entreprise nga mën ci nga mën ci euh, jël ñeneen. te am na fa ñoo xamante ne bi tey jii. même demuñu sax école. Hmm. mais ñu ngi ñu ngi taxawal ay entreprise yoo xam ne day day day absorber ay ay ay jeunes di leen jël ñu liggéey. Hmm. kon donc loolu fa la ñu war a fa la ñu war a jëm waruñu xaar lenn ci kenn. Hmm. am naa am jàng. néew na bëri na. wala euh, def naa formation professionnelle su ma génnee balaa may dem di tàllal kenn sama kayit ma xool man lan laa mën a créer. pour mën a au sax. Euh, amal njëriñ sama gox. Mhm. mën a mën a mën a mën a jël ay sama moroomu jeune pour ñu liggéey. yaa ngi koy wax léegi kon entrepreneuriat mun nañ jàppale la ab euh, mbir la boo xam ne mën na suqali gox bu nit nekk. Mhm. entrepreneuriat mooy suqali parce que tey jii su fekkente ni bi yow amoo benn entreprise. Mhm. amoo benn industrie. mënoo mënoo émerger mënoo mënoo dem fenn. Mhm. parce que loolu moo lay permettre ngay am ay revenu mhm. mais su si toutefois yow da ngay toog rek ku la bu la nit rombee jox la cent franc wala nga dem ci nit mu mu may la euh, dix mille franc. Mhm. dix mille franc weccit la. si soo ko yoree tey jii mën nga ko lekk ci benn fan wala ñaari fan te mënoo ci régler benn problème mhm. donc nag man li may li nga may mayee weccit mhm. wan ma yoon bi nga xamante ni bi man ca laay jaar pour di am weccit boobu mhm. nga xam ni heure bu ma ko soxlaa dama koy am ci temps bi ma ko soxlaa ak ni ma ko bëggee kon euh, mbokk yi 88 la 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ba tey dañuy wéyandi ci la nga xam ni moo di émission gox bi am nga beneen kase itam mu di syndicaliste nga euh, secretaire général adjointe bu UDTS ci wàllum filière bi nga xam ni moom moo jëm ci wàllum. économie waaw tey euh, filière boobu nga yor tey euh, nan nga ko nan nga ko gisee ndax dañu jàpp ni yéen ñi nga xam ni yéen yor filière boobu yéen bu ngeen fay impôt de daa mel ni waaw dañuy dañuy wax rek parce que ñun impo impôt yi nga xamante ni bii ñun moom la ñu moom la ñu jàppoon ni moom lañu ñu war a fay. Mhm. Euh, da ngay lal sa taabal ñu ñëw laaj la laaj la juuti. Mhm. ñu weer dee wala at mi ñu laaj la patente. Mhm. ñun ci suñu xam-xam bu gàtt loolu la ñu jàppoon mais par la suite la ñu xamal ni ñu boo bëggee vraiment nga nekk ci milieu bi. il faut nga dem déclarer wu. domaine. Mhm. wane ni man mi sama entreprise bi ubbi naa ko. Mhm. nii la tudd. Mhm. ñu defal la NINEA NINEA boobu nag su fekkente ni bii yow da nga commencé di liggéey. ngay def déclaration wane ni yow commencé nga say activité nga def euh, contribution global unique. su fekkente ni bii. commencé nga vraiment liggéey. Mhm. soo commencé wul tamit nga def ni déclaré ni man commencé gu ma samay activité mhm. information boobu di kii mais ñun information boobu daawuñu ko am. Mhm. léegi nag pour nga pour nit ki. nga mën koo dimbali. Mhm. il faut nga di ko informer ci li nga xamante ni bii moom mooy jëmale li muy def kanam. Mhm. foofu la syndicat bi taxaw. Mhm. di dem ci nit ñi. di leen yee. ci ci ci wàll wi ñu nekk. nan lañ ci mën a def. ba ba gis ci seen bopp. te duñu am benn gàllankoor. ndax dañu jàpp ni tamit foofu boo fa nekkee accident de travail amoo ko. booy liggéeyal sa bopp. boo boo boo defee boo gaañoo ci fa ngay liggéeyee. Mhm. dootoo amati revenu. Mhm. te la nga amoon na ku si ñëw di nga ko fajoo. Mhm. amoo couverture maladie amoo euh, euh, retraite yu bëri muy wàllum protection sociale nga xam ne dañ ko ëmb ci benn paquet rek. ni ni protection sociale. loolu dañu jàpp ni ñuy liggéey ci économie informelle amuñu ko parce boo dee da dem fee entre euh, ki lay liggéeyloo. Mhm. daf lay daf lay cotiser. Mhm. yow tamit ngay cotiser bu dee ci retraite bi la. Mhm. bu dee fële tamit am na lu ñu lay jox loo xamante ni bii après mooy doon. Euh, li nga xamante ni bii bis bu la loolu dabee. ñu mën cee dindi faj la. boo amee doom it kasaalika nga mën a am allocation. yooyu yëpp nag. ci yooyu la la ñuy jàppale. Mhm. nit ñi pour que ñu mën a ñu mën a formaliser wu. Mhm. mën a mën a dugg ci ci siège boobu. waa ñoom tamit ndax yéen a ngi leen di tàggat du fu waay jot rek lal sa taabal tamit jaay de ndax euh, marché yi dafa am ay normes ba tey yaa ngi gis ci marché yi ñu ngi yëkkati ñenn ñi ay projet moo fay jaar. ndax jotul itam yéen ngeen di tàggat ñi nga xam ni ñoom ngeen di jiite ngeen wax leen ni euh, nit e-, état moom fu mu soxla alakuli alin jug la waaye dinañ la jug ñee ne sommation dugg na fii génn na fii dafay xaw a métti ndax yéen a ngi leen di tàggat ci mbir mi ni mel. waaw suñ ne formalisation rek déjà yow yaa ngi wax nit ki ci ban yoon la war a jaar. bien sûr pour liggéey liggéeyam liggéey bu normal te du ci am gàllankoor. Mhm. xam nga nga installé wu fenn yàgg fa dafa am sa sa dara. Mhm. jékki-jékki ñu yëkkati la xamatoo fooy dem xam nga loolu gàllankoor la. Mhm. kon buñ ne formalisation rek c'est lépp a ngi si biir. Mhm. ay paquet d' activité la yoo xamante ni bii tey jii dina permetre ba ki nga xamante ni bii dafa war a liggéey mu xam moom fan la war a installé liggéeyam pour mu mhm. dox. Mhm. ndax maanaam boo yoree benn activité dem installer ko ci zone bu doxul xam nga euh, doo doo mën a am li nga bëgg. kon donc fan la war a installer wu pour mu dox. loolu lépp il faut tamit. ñu ñu ñu tàggat ci nit ñi mhm. mais aussi tamit suñu collectivité locale yi mhm. ñoom ñu bañ di xalaat de xaalis bi ñuy percevoir ba foo ñëw rek ñu ne la waa daggal naa la su weer bi deewee nga ñëw fay ñoom ñuy xool gain boobu rek. Mm-hmm. mais aussi tam nañuy xool li nga xamante ni bi mooy réalité. Mm-hmm. ba nga xam ne duñ fa eh, duñu installé kenn koo xamante ni bi day yaakaar ne moom fi mu nekk priorité la wala. Mm-hmm. fu mu war a nekk la. casquette yi moom dañu bëri macha allah euh, membre nga itam ci li nga xam ni moom moo jëm ci euh, comme euh, membre actif communautaire femme wàllum transfert wàllum formation yi léegi ndax tey yéen mën nañ xaar ci région yi. ngeen di jóg di dem di tàggat ñi nga xam ne ñoo di jigéen yi nekk ci format ci ci ci ci gox ak goxaan yi walla ci région yi di leen euh, tàggat ci wàllum formation parce que ñu bari ñu ngi ci région yi waaye initiative yu mel nii lañ manqué. xam nga Joal bi ñu fa demee. Mhm. Joal ñoom déjà ñoom ñu ngi ci transformation produit halieutique. Mhm. mais ñoom dañ ko doon defee noo xamante ni bii dafa amoon ay risques. mais bi ñu demee dañ leen a dañ leen a wan naka lañ koy defee mhm. ba risque yi dootul maanaam dootul aggravé wu mhm. que fa ñu nekkoon rek di ko def mhm. norme yoo xamante ni bi norme de travail yu yu yu, yu pénible la nekkoon ñu ñu fexe ba ñu aménager ko wutal leen ay équipement de protection individuelle yoo xamante ni bi kenn ku ci nekk da nga koy yor balaa ngay dugg ci fa ngay fa ngay liggéeyee Euh, ndax dañ daan liggéey à main nue di ak seen tànk yeeg yooyu yëpp. Mhm. loolu lépp ñu ñu fexe ba ñoom ñu jóge ci étape bi ñu nekkoon. Mhm. dem ci bële. Euh, sa di xam nga du ñu ñëw rek ni la tey ji dañ lay former ci wàllum lii wala wàllum lii. Mhm. dëkk boo gis am na spécificité. am na ñu loo xamante ni bii ñoom moo gën a dox foofu. la fa nekk nag ñun suñu ñëwee ci loolu la ñuy liggéey ak yow. ko defee nga mën nga mën cee gis sa bopp mën koo liggéey. amaana xëy na du doon loo xamante ni tàggat à cent pour mais norme yi nga xamante ni bi yow ci nga war liggéey muy norme d'hygiène yi mhm. ak norme de qualité yi ci ci ci loolu la ñuy gën a insister ak wax la tamit sa produit mhm. boo bëggee mu jaar naka nga koy def ak yooyu mhm. ci yooyu la ñuy gën a liggéey ak femmes yi ak seen seen communication parce que booy boo yoree yenn produit il faut nga mën a négocier négocier ak ngeen di defee seen négociation yi ak partenaires yi ndax euh, day faral di am euh, ay résultats ba ngeen di dem biti réew tey ndax tey mën nañ di seen produit yi ngeen dem di ko yóbbu ca biti réew di ko exposer. waaw lool loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg parce que bi ñuy defee session marketing Kaolack Kaolack lañ ko defee jëwoon. Mhm. biñ ko defee ba pare xalaat nañ ñu ñun dese nañ ñu lu bëri pour que suñu produit yi mën a génn. Mhm. léegi nag ak consultant bi nga xamante ni bii moom moom moo ñu ko doon defaral. Mhm. moom ñu ngi ñu ngi waxtaan ak moom. Mhm. léegi mi ngi jubban mi ngi jubbanti lu bari. Mhm. ci ci ci emballage bi. ci logo yi ba ci ba ci tur bi rek sax. mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi jubbanti. parce que ñun dañu jàppoon ni soo xasee ba am benn tur produit yi nga am yëpp mën nga ko mën nga ko tuddee noonu. mais mu xamal ñu ni tey jii su fekkente ni bii loolu da nga ko def produit boo am. bu amee jafe-jafe. Mhm. Euh, dañ ciy boolewaal yëpp. Mhm. te mën na am benn produit rek mooy am jafe-jafe yi ci des duñu am jafe-jafe. Mhm. kon mieux tey jii produit bu si nekk. nga am yow noo ko noo ko tuddee mhm. noo xamante ni bii tey day wuyoo ci benn label bi mhm. mais tur yi du bokk mhm. nga xam ne bu dee boobu dafa am di nga ko mën a retirer bàyyi yeneen ñu dem mais su nit ñi xësee ba ancré seen bopp rek nii lii dafa am jafe-jafe mën na mën na créer problème ci loolu ndax yéen yéen a ngi jege euh, ASEPEX ak kuréel la boo xam ne dañ ko fi teg képp koo xam ne war nga mën a dem di exposer say bagage ca biti réew nga jege leen yéen est-ce que yéen a ngi jege ñi nga xam ne ñoo di autorité yi xam ni ñoom ñoo yor wàll wi ni mel ci jëm ci wàllum tàggat ci wàllum transformation bi ak yeneen xeet yoo xam ne dafay jëriñ ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen ñi. Mhm. wàllum euh, structure yi nga xam ne moom dañuy tàggat. Mhm. ONFP moom dem nañ fa mhm. déjà am na ay formation yoo xam ne sax jot nañu ko may. 3FPT tamit bind nañu. ñu ngi toog di xaar. kon structure yi yaakaar naa ñu ngi siy dem. mais ñoom seen réactivité mu moo gaawul daal dafay dafa xaw a kii dafa waaw dafa xaw a yéex mhm. mais n'empêche ñu ngi toog ñu ngi toog di déglu mhm. ak li nga xamante ni bi yëpp ñun jot nañ ko am mhm. dinañ xool ñi nga xamante ni bi expertise locale bi ñu am ñu ñu jéem ci tàmbali ba nga xamante ni bi ñoom suñu ñëwee dañuy dañuy gën a renforcer rek euh, ASAPEC moom demaguñ fa moom ministre bi dénk wàllum kopparu bi réew bi jidde caaroy kaw la dëkk wala caaroy ot amadou ot yëmbal ndax waa ndax tey euh, moom moo yor koppar gi seen bu ngeen amee ay projet yoo xam ne tamit mën na jëmal parce que lépp ci banlieue bi la rek ndax tey yéen euh, dem ngeen seeti ko ngir mu jàppale leen ci projet yi nga xam ni yéen moom ngeen am ci lépp rek ci domaine état la waaw moom moom moom seeteeguñ ko Amadou parce que ñun euh, kii lañ fi jot a toogal muy Zahra Iyane. waaw yor microfinance. Mhm. ci projet boobu mu wax placer pris mhm. yéen financé nañ leen si. non non pas encore. Mhm. mais yéen ci am njort parce euh, dañu demoon ci ci ci ci ci plateforme bi. ñu jëloon suñu ay coordonnées. ni woon dinañ ñu woo. mais ba léegi déggaguñ leen. déggaguñ leen woowaguñ ñu. ñun ñoo ñun ñoo ngi toog mm-hmm. xam nga tey ji su fekkente ni bi yow xam nga li nga yor mm-hmm. doo topp di daw ci ci kaw kenn mm-hmm. au contraire ñoom ñoo waroon di wër ñu yor ñu yor lenn li pour mën a euh, véhiculer politique gu état mais su fekkee da ngaa toog di xaar nit ñëw des fois nit ñëw sax pour nga recevoir ko problème lay doon kon donc ñu dañ naan nañ toog rek liggéey su léegi yow noo gisee place pris bi sa à dire place bi liñ ci wax lépp dafa de dafa bëri. Mhm. te te jàpp naa ni plateforme bu fi bu fi amoon la bu yàgg. mooy ban. Euh, maanaam comme nii da ngay bind projet. Mhm. projet bi day am ay activité ak ay normes yu muy yu muy yu muy wuyool. Mhm. ñun defoon nañ ko ci ministère de de la femme. ci seen euh, fonds de la femme boobu fonds national de la femme. foofu tam dem nañ fa bind nañ fa projet. boobu temps riz local bi riz la vallée bi. Mhm. la doon promouvoir pour mën ko am dépp boo xamante ni bii rek dañ koy véhiculer pour suñu membres yi. Mhm. mën di ko am. Mhm. ndax accès bi boobu dafa jafe woon. biñ demee bind nañ projet bi topp nañ ci ba sonn. mais ba léegi kenn financé wu ko. te man dama. dama jàpp ni état continuité dama jàpp ni sax te jii su fekkonte ni bii projet boobu ñun ñoo ko bindaloon suñu bopp sax ñu mën a wax mais ñoom ñoo lay accompagner pour nga bind ko. laaj la données yëpp. mën mhm. le fait ñu financé yi te boobaak léegi yow amul benn suite te en plus doo am benn feedback. Mhm. lan moo tax financé wuñ la. Mhm. loolu tamit vraiment problème la. ndax da ngay dem déposer def sa papier def sa lépp. mais suñ suñ la kii tam ah madame telkat c'est vraiment nous sommes désolés mais nangam ak nangam ji moo tax sa projet bi nangam. Mhm. ndax lii dafa manqué wala lii wala dangaa waroon a kii fii te su ko defee yow nga mën a nga mën a rectifier wu. Mhm. su fekkee loo war a loo waroon a am la te amoo ko nga dem mhm. wuti ko. su fekkente ni bii tamit loo waroon a def la te defoo ko nga def ko. duñ la jox benn information en retour. Euh, loolu daal jàpp naa ne. naka nga gisee politique gu état ci wàllum développement ci gox ak goxaan waaw état état dina teg ay programme ak ay projet yu bari dina teg tam ay agence yu bari mm mais agence yëpp dama jàpp ne ñoo bokk lu ñuy def mhm. bu ñu bëree tamit ñoo bokk lu ñuy def mhm. kon mën nañu xool fi nga li nga xam ne dañ ko niroole mhm. ñu regrouper leen muy benn mais tey jii yow boo dañ naan la demal FNPJ mm-hmm. demal an ANPEJ mm-hmm. demal euh, FONGIP mm-hmm. demal DER pa euh, bu yàggul fu nekk ñu ñu ñu ñu bëgg la faa dem loo nga bind bind dugal dugal dugal te ñooñu la majeure partie li ñuy financé du bari tuuti nit la ñuy financé après agence boobu boo ko déggatee sax euh, mooy loolu wala wala dootoo ko déggate à nga koy dégg kon donc vraiment suñu suñu suñu impliqué woon def de manière inclusive mhm. li nga xamante ni bii mooy projet ak programme mhm. teg ko pour jigéen ñi wala pour pour sax jeunes yi de manière générale rek mhm. pour que développement am am na ñoo xam ne ñu ngi ciy yëngu ñu boole ñëpp def ko comme ni ñu defoon assise nationales yi peut-être zone bu nekk ñu ñu ñu consulter ñañu war a consulter ñu def benn programme bu dëgër xam ne lii la ñuy soxla lii am na fi lii amu fi nañ ko bokk wuti xëy na mu gën a yomb yow développement dëkk bi gëm nga ko ne amaguñ ci tànk yi de. parce ah, que mënoo développé te amoo industrie. Mhm. amoo fi a ah, ana industrie yi yi fi nekkoon ñu ngi tëj. Mhm. léegi fan lañu war a aw kon. il faut ñu ñu ñu ñu delluwaat ci ci ci suñu ca la ñu xamoon. Mhm. maanaam comme ñu ngi am ay. meññeef. ni ñu koy waxeeti sax euh, yi yiy feeñ nii. ay ressources ay ressources naturelles a ngi fi. am nañ suuf. Euh, suuf si nangu na mi ngi bay. nañu xool naka la ñuy mën a jàppale ñi nga xamante ni bii ñu ngi ci secteur yi bokk. Mhm. ñu boole leen taxawal ko mu nekk entreprise. Mhm. nit ñi di ci liggéey. Mhm. mais su fekkente ne bii man damaa nekk ji da caare kaw taxawal sama unité. fukki unité ak juróom-ñett wala ñaar fukki unité nekk ji da caare kaw. ñun ñëpp ñuy defandoo leen. te dajaloo wuñu booloo wuñu. du dem. il faut ñu xool ci synergie boobu naka lañ koy defee. Mhm. ba nga xamante ni bii tey jii li ñu bëgg dinañ ko am. Mhm. léegi ba tey dañuy avancer foofu rek laata ñuy euh, dugg laata ñuy dugg ci mairie bi ndax tey jàpp nga ni jigéen ñi bokk nañ ci war a ñu mën a war a mën a suqali gox ak goxaan yi ndax yéen da ngeen jàpp ni toog croiser de bras rek waru leen. léegi jigéen ñi kenn toogatul de. Ah, kenn toogatul croiser le bras. Mm-hmm. ku ci nekk yaa ngi jóg di wuti loo loo def. Mm-hmm. wala nga wuti loo am. Mm-hmm. ndax góor ñi bañuñu mais dañu mënul li ñuy li ñuy fayoo ko kus néew buñ buñ ci joxee dund. ca lay yem. léegi nag yeneen besoin yi nga xamante ni bi ay besoin primaire la. te te famille bi soxla ko. Mhm. il faut mu am ku taxaw nag di ko def. Mhm. looloo tax jigéen ñi foo leen gis ñu ngi yor seeni association. Mhm. dañu organiser wu. dañu organiser wu dañu structurer moo ñuy permettre te jii lu ñu bëgg taxawal ñu ñu ñu taxawal ko. ndax foo dégg dañ naan moo jigéen lu mu bokkul du dem. c'est parce que organisation boobu ak euh, éveil de conscience boobu nga xam ne commencé na am ci jigéen ñi. moo tax fi mu nekk nii. lu nekk ñu leen cay boole ak di mm-hmm. bëgg jigéen ñi di ñëw di bokk mm-hmm. pour que loolu mën a dox mm-hmm. ndax ñoom lu ñu bokk dañ ciy dem à fond te lépp lu ñu am tamit dañ koy delloowaat ci seen biir famille ñu ngi jëm ci euh, mois ñu ngi ci mois boo xam ne euh, mois jigéen ñi la loolu la ñuy wax huit euh, mars te ku ne mars ne huit mars tey ndax jigéen dañ ko war a sargal rek date boobu rek ndax loolu yow ànd nga ci c'est-à-dire xam naa ni du du day benn bis la boo xamante ni bii rek dañ ci dañ ciy sargal jigéen ñi mhm. maanaam pour pour fésal pour fésal la mhm. aajal la mais jàpp naa ni année bi yëpp mhm. année jigéen ñi la war a nekk jour yëpp jour jigéen ñi la war a nekk bis bu set loolu laay wax ci saa buñ koy célébrer man xëy na dañ ci tànn benn bis mais du du du du du du benn bis boobu rek mooy bisu jigéen. Mhm. chaque jour rek. Mhm. bisu jigéen la. tax mhm. ñun dañu même budul budul le huit bi le sept bi ñun dañ ci am ay ay faits marquants yoo xamante ne bi euh, te ji suñ ko doon célébrer ñun le sept boobu la ñu war a jël. muy faamu muy faamu ndeer yi talaatay ndeer. parce que le le set boobu mhm. ñun moo war a nekk ñun suñu journée mhm. parce que jigéen ñi dañ ci dañ ci marqué woon pas bu am importance dañ ci marqué woon seen empreinte mhm. donc ñun bu ñuy bu ñuy fësalati yëfi jigéen dañ jour boobu lañ ko war a def ba danga jàpp ni euh, la nga xam ni tey taxawaay jigéen ci nim réew noo ko gisee muy taxawaayu yaay taxawaayu éducateur taxawaayu exemple tamit waaw mu nekk mu nekk royukaay Euh, taxawaay boobu la jigéen war a am mm-hmm. mm, xool loo xamante ni bii dafa war a yàqu mu defar ko mm-hmm. lu war a lu war a ñaaw mu fexe ba mu rafet mm-hmm. taxawaay boobu la jigéen war a am ay tey loo gis di ñaw di waaw xam nga déjà ak jamono bi fi mu toll rek des fois nga gis loo xamante ni bii danga naan waru woon a doon jigéen xam nga suñu demee ba naan waru woon a doon jigéen kon wàcc na la mu waroon a def kon donc ñun dañu am ay repères suñu repère yooyu ñu ngi fi jóge wuñ fi. kan la ñan ku ci mel ni maam Jaara Buso mhm. nga xam ni dafa liggéey. Mhm. lu mu dund bariwul. Mhm. mais mu bàyyi fii way woo xamante ni bii du fay ilaa yow mi diini. àddina yëpp ñoo ko xam. ku ci mel ni suñu maam Fawad Wele. moom tamit gis nga fi mu jaar. ñu am ci ay exemple yoo xamante ni bii yu patent yu yu ñu mën di citer. Mm-hmm. mu nekk ay repères yoo xamante ni bii tey ji képp kuy jigéen rek. Mm-hmm. ñooñu dañu waroon a nekk say say say royukaay. Mm-hmm. dañu waroon a nekk say ci sa kanam. looy def nga xalaat ni kat. kii amaana bu defee woon ni tey jii du am lii mu am ñun ñun foofu la jigéen ñi war a toll tey tey naka nga gisee euh, fitna yi nga xam ne ñu ngi koy teg jigéen ñi bari na de waaw mu metti ñu lool nag métti mhm. ñu lool ñu di ko naqarlu tamit euh, ba fa naqar yam mhm. fois sax bu ñu bu ñu eggee ci benn extrême bi dañ naan dafa am manque de volonté de l'État boo xamante ni bii mooy seetaan ñu ñu ñuy def li ñuy def jigéen ñi mhm. parce que xam nga mitital rek dafa dafa dafa ëppoon léegi nag ñu boole ci bay bay bay rey maanaam ñu ñu mën ko tuddee massacre léegi ndax dafa bëri doo toog deux jours wala trois jours wala une semaine yoo déggul ñu ne rey nañ jigéen mhm. te ci rey yu ñaaw lañ leen di rey ñu mhm. ñaaw lañ leen di rey mhm. kon donc loolu lu metti la loo xamante ni bii lu ñu war a saafara la te ñun jigéen ñëpp nag dañu ci war a dégg ñu war a jóg taxaw waxandoo suñu kàddu nekk benn ñu dégg ci ah teg nañ ci benn loi léegi ku def lii yat bi daw yi daal sa kaw waaw loi sur sur euh, criminalisation du du viol criminalisation du viol. da nga jàpp ni mënul saafara li ni mel. non di xam nga lay lay tax ñu ni ñu ni viole dëgg am na. Mhm. des fois mooy mooy nekk problème bi. exposé bi ñuy exposé. Mhm. victime bi. Mhm. fu nekk ñu yóbbu ko fa. rajo bu nekk ñu ñu ñu ñu lawte lawtee ko fa tudd fa turam. des fois sax day am ñoo xam dañuy génne image am di wane. xam nga loolu lépp tamit. su fekkente ni bi kii ñu la de manière psychologique rek accompagner wuñ la mhm. mën na am lu muy lu jeexital bu muy def si yow boo xamante ni bi du doon bi gën mhm. te preuve yi tamit dañ naan la su fekkente ni bi yow ñëw na violé nañ ko mhm. bul sang bul def dara yóbbul noonu si hôpital man en tant que parent su ma amul maturité boobu wala xawma lool damay ñëw rek sang sama doom fóot gaaw séri ni naa ko soog a yóbbu su ma demee ñu ne ma violé wuñ ko des fois ñu naan est-ce que nanguwul. Mhm. des fois ñu indi ay balaa ñu naan kii moo def rek. Mhm. fekk yow c'est la croix et la bannière. Mhm. te am na ci parents yoo xam ni. maanaam lu leen di yóbbu ca barab ba sax. maanaam da leen di jafe. te ji pour ñu accompagner leen. ñuy ñuy jaajëfalaat bu baax waa AGS nga xam ni. seen butu de droit bi mi ngi Pikine lu ci bëri ñoom dañ ciy jàpp bu baax. Mhm. di accompagner nit ñeeg ci ci yooyu. Mhm. comme ñun yàlla dafa dogal tam ñu ay bàjjanu ko mhm. ñi bu ñu amee kaar rek. lu ci bëri dañuy dañ koy reverser foofu. wala ñu dem euh, kii sociale direction sociale. comme ça ñoom ñu mën a mën a jël kaar bi mën ko mën ko mën ko suivre. mais daal métti na trop ba fa métti di yem. te nga xam ne tey jii ku ñëw rek ni dañoo dañ dañ ma violé wala dañu violé sama doom. am na loo xamante ni bii am na ci. kon waruñu waruñu réfuter lépp. Mhm. wala ñu koy sonal ci ay demal indi certificat médical ak demal def nii ak dem lépp dafa waroon a nekk fi ngay fi ngay mhm. ñëw rek. Mhm. nga xam ni suñ paree rek ñoom dossier bi ñoom ñoo ciy chargé wu dox ko wax ko ba mu sotti. maanaam buñ nee 8 mars rek sa xel mi ngi ci xalaat ci jigéen àdduna wërngal këpp yëpp. waaw pratiquement 8 mars bi moom c'est c'est une journée mondiale. Mhm. kon donc jigéeni àddina wërngal képp yëpp lañ war a lañ war a xalaat. ñëpp mhm. lañ war a sóoraale. Mhm. ñi nga xam ne ci ay jafe comme ñi nga xam ne nekkuñu ci ay jafe-jafe. tey sa lay dem bu 8 mars ñëwee tey. bu 8 mars ñëwee moom sama xel ci ñi muy gën a nekk mooy ñi nga xamante ni bii dañu nekk ci ay jafe-jafe. dañ ay jigéen. waaw nekk ay jigéen nekk ci ay jafe-jafe. ak ñi nga xamante ni bii dañ leen di torture di leen maltraiter. loolu lépp dañ ci mhm. sam sama xel daf siy dem mhm. en plus ñi nga xam ne tamit mhm. ñu ngi dund ak yenn feebar yi te te te xamuñu ko en général panel yu mel noonu la ñuy organiser bu ñu waxee ci violence après dañuy wax ci euh, feebar yi nga xamante ne bii mm-hmm. mën na dal jigéen mm-hmm. parce que ñun amuñu culture dem hôpital mm-hmm. seet suñu yaram bu dul dara bu ñu dara jotul rek dañ naan tout bien te am na ay maladies yoo xam ne ay maladies sournoises lañ yoo xamante ne bi dañ lay ronger ba bu ñuy bu ñuy génn nga leen di xam egg nañ phase extrême yooyu yëpp tam dañ ciy waxtaan ak jigéen ñi pour que ñu mën a léegi pour jeexal mairie bi la ñuy wax waaw mairie tey naka nga gisee taxawaayu Cheikh Dieng ci mairie Djiddah Thiaroye Kao ndax lépp ah lépp gongo moom yàlla mi ko mën sax defu ko. ah damay laaj rek. waaw yàlla mi nga xam ni moo mën defar lépp mu parfait. Mhm. sax defu ko. Mhm. dañu faral di wax parfait n'est de ce monde. Mhm. yàlla moo ñu moo ñaale ak matadi. naam mi ngi def ay jéego nag. du ma ne deful ay jéego de. mais jéego itam dafa ànd ak ay maanaam ay ay ay ay. Euh, su dee dafa def réalisation. réalisation yi des fois day ànd ak surfacturation. Mm. te xam nga déjà dañ ni reddition des comptes. ñu koy ñu koy exiger état. Mhm. mais dafa war a commencer ci ñun. Mhm. suñu base ñun ñi nga xam ne ñoo gën a ndaw. Mhm. ci ñun la war a commencer. ñu war a jëm kaw. mais tant que commencer wuñ ko ci ñëw di ko séentu ci kaw des na. di ko séentu ci ñi ca kaw. li ñu bëgg a saafara. nekkul li nga nekk ci mouvance moo tax ngay wax loolu. non non même pas. même pas parce que man dama comptable ci moom gestion comme conseiller municipal la lépp lu muy def tey jii man daf ma engagé. mais du tere nag. Mhm. bu ñu nekkee ca biir conseil ba. Mhm. lépp lu luñ fa war a defendre loo xamante ni bii pour askan wi la. Mhm. dinañ ñi déet. lépp loo xamante ni bii nag buñ ko défendre muy njëriñu population bi. duñu hésiter pour defendre duñu nekk d'accord nañ fa ñaari conseil fu coow lu mujj. coow li ba léegi mi ngi mi ngi pendant. Euh, la justice ba léegi ki yegguñu. ndax euh, jaroon nañu yegg foofu. waaw jaru ko woon nag. jaru ko woon comme ñu ne yéen conseil yi doo leen fekkee réunion yu bari moo non non cest dire xam nga conseil municipal ak la fay xew. Mhm. Euh, maanaam mën nañ ko misaale comme euh, assemblée nationale. Mhm. parce que tey jii su dee da ngaa am majorité. Mhm. day am ay minorité yoo xamante ne bi dañuy jóg di wax yenn yi. mais du ñu gisee ni kii dafa dafay alerter wala dafay wax li mu war a wax. mais dañu naan dafa àndul ak maire bi moo tax muy waxee nii. léegi ñu commencé di la chayité mhm. commencé di la yuuxu commencé di la wax yoo xamante ni bii wax yu tegginewul la mhm. te nga gën leen a nekk responsable mhm. fuuf yu mel noonu dina faral ba ñi nga xamante ni bii ñoo waroon a liggéeyal ci dacaare kaw yëpp dañ naan finalement jaru ko parce que soo demee tamit du du du mujj fenn su dee lu mu bëgg a jàllale la majorité ba dañ naan ñoom yow yaa ñu fi indi. Mhm. loo wax rek loolu la ñuy. dañu war a changé doxalin boobu. waaw mhm. doxalin boobu moom. Mhm. jàpp naa ne lu ñu war a changé la. lu ñu war a xoolaat la. parce que tey jii mënuma concevoir ñu indi la budget wala ñu indi la projet de loi wala ñu indi la lenn loo xamante ne bi dafa war a delluwaat ci askan wi. nga taxaw. mu leer la ne lii. buñ ko votee du du dellu ci askan wi. nga taxaw voté ko. loolu moom la ñu war a seetaat. élection yii. ndax yow mun nañ xaare ni nga samba sa ndënd ngir jiite gox bii de jiddee yi kaw nga nekk suma ma juumul jigéen bu njëkk bu diriger commune bi ndax mun nañ xaar lool waaw man dama nekk ci mouvance nag mhm. mais dynamique boobu dàquñu ko nga yow nga nekk candidat non non man ak ñi ma àndal mhm. parce ah, que léegi buñ la buñ la ngembee pour nga nekk candidat gisuma ci benn inconvénient nga nekk maire foofu waaw bu ñu bu ñu ngembee moom mhm. gisuñu ci benn inconvénient ndax vraiment bëgg nañ gox bi ba gox boo xamante bëgg ngoo mhm. xamante ni bii tey jii. Mhm. suñ ñu ne woon acca ñu ne acca. sa mbébét la mais gëm naa ni. Mhm. gëm naa ni ki ma àndal. moom moom tamit defar ji de caare kaw rek moo ko ñor. te loolu rek mooy mooy li nga xamante ni bii moo ko intéressé. kon donc. mais yow ambition amoo pour jiite gox bi. xam nga jiite gox bi. bu dee même nii may def nii rek. bokk naa ci ñi jiite. ndax tey jii sama kàddu dinañ ko dégg ca fa ma dëkk mhm. dinañ ko dégg ca ca ca mairie ba mhm. mais de manière exécutive mhm. xanaa moom ci boppam moom mi nga xam ne moom la àndal mu ne ma dénk naa la fii maa ngi dem mairie ville su boobaa ma téye ko mais gestion bu mu mënti am sama loxo du ci génn waaw sama loxo du ci génn man dama yaakaaroon ni sa mbébét bu gënoon a rëy mooy nga nekk maire waaw cest xam nga tey ji soo soo àndeek nit mhm. dooni dooni man man lii laa bëgg mhm. mais da ngay xool intérêt intérêt groupe bi yëpp fan la mhm. jëm parce que man tey ji su ma génnee rek nekk naa singleton taxaw ne naa na li bokkatuma ci groupe bi te pour nga bokk ci groupe bi nag il faut tey ji ngay ngay ngay xool intérêt groupe bi xool tamit li nga xamante ni bi mooy mooy avancé loo groupe bi te moo koy moo koy may moo koy may dab ok tey mbégte la woon bu nu am bu rëy dalaloon la fii boo amee kàddu gu mujj booy tàggatoo lan la. waaw xanaa di di leen jaajëfalaat bu baax ci choix bi ngeen am. Mhm. Euh, di wax ne rek xëy na ñi ñi doon woote xëy na dañu xamul yoon bi. Mhm. wala tamit ñu ñu weex. Mhm. mais amoon nañu ñu bëri ñu waxoon ne dinañ woote. xam naa ay gàllankoor la mën na mën na am tamit mhm. mais ñun amoon nañu mbégte mhm. bu baax tey ji teew ci seen studio bi mhm. ndax permettre nañu ñu ñu wax tuuti ci li nga xamante ni bii moom la ñuy def permettre ngeen ñu tamit à travers seen émission mm-hmm. ñu mën a waxtaan ak seen ay auditeurs ak seen ay auditrices mm-hmm. ba ñi nga xam ne xamuñu ñu woon mm-hmm. peut-être que xëy na dinañ ñu xam à travers émission bi ñu lay jaajëfal bu baax Mbemba ak ki nga xamante ni bii moo nekk intermédiaire sama diggante ak yow Euh, di leen di rafetlu tamit seen seen seen seen liggéey bi ngeen di def. Mhm. parce que yéen a ngi yéen a ngi jàppale pour gox yi suqaliku. Mhm. ndax tey jii su dee dañuy waxtaane problème mu gox yi. Mhm. pour trouver solution la. mais waxtaane wuñ ko pour ŋàññi waxtaane wuñ ko tamit xaste wala pour boddi mais dañuy waxtaane pour que solution am. ndax tey ji amaana ku dégg sama kàddu. mën na ni solution mën na am fii. wooñu ni ñu ñëw leen fii. ndax lii ngeen di jàmbatkat boo leen demee fii mu saafaraw. kon donc loolu yéen dañ leen ciy jaajëfal bu baax mm-hmm. di leen ñaanal tam bonne continuation ay xale ngeen yàlla na euh, rajo bi jëm ca kanam ba télé topp ci incha allah ñuy nuyu bu baax tamit sa technicien bi ci ci ci jàppandal gi mm-hmm. vraiment Adama mm-hmm. am nañ mbégte bu baax kontaan nañ jërëjëf ñoo gën a am mbégte unité di la sant di la gërëm soxna Ndeye Niang fii la ñuy daal di yëkkatee euh, jotaa bi ba beneen dimanche rek boobu day tombeek la nga xam ne moom moo di 8 mars boobaa danañ ko def benn euh, émission boo xam ne danañ ci jox gëdd ñi nga xam ni ñoom ñoo di jigéen ñi sant leen gërëm leen gërëm aadama Diallo mi nekkoon ci xarale gi.